alhamdulilahi rabbil alamin wa salli allahuma wa sallim ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa asxaabihi ajmain amma baad mbokki jullit yi ñoo ngi leen di dénk di dénk sunu bopp ragal sunu borom tabaraka wa taala ci def ay ndigalam ak bàyyi ay tereem te sellal ko mbokki jullit yi dënn bu féex moo di dënn boo xam ne yoreelul ak mbañeel ëmbul mbañeel ëmbul kiñaan ëmbul mer moo xam ne daf koy denc di ko dencal benn jullit loolu nag muy dënn bu féex boo xam ne dencalul kenn ak mbañeel wala kiñaan bokk na ci jikko yi gën a tedd ci jikko yi bokk na ci jikko yi gën a sell yi nga xam ne ay benn benn nit rek ñoom la ko yàlla jox ay jàmbaar moo tax borom bi tabaraka wa taala dafa wax ne loolu diisu ko may kenn lu dul ñi nga xam ne ñooy muñkat ya diisu ko may kenn lu dul koo xam ne borom cër bu mag la ñi nga xam ne ñooy borom itte yu mag ya borom itte yu kawe ya ñooña rek ñoom ñoo mën a jéggale loo xam ne lu ñaaw jëm ci ñoom la ñoom rek nga mën a def lu ñaaw jëmale ko ci ñoom ñi tontoo la lu rafet ñooñu ñooy ñi mën a garder seeni xol ñu nekk ay xol yoo xam ne yu mucc lañuy ñuy doon yu leer lañuy ñuy doon yoo xam ne du ëmbal kenn aw ay te xol bu mucc ci ëmbal doomu aadama yi aw ay dafa bokk ci yi nga xam ne dana tax sunu borom tabaraka wa taala nangul nit ka ay jëfam yi muy jëf sabab la it ci tàbbi na ndax sunu borom tabaraka wa taala moo ko wax nee na képp koo xam ne jéggale na teg ca lu def lu baax tooñees na ko mu jéggale teg ca rafetal nee na kooka ab yoolam day yàlla rek moo ko ko mën a fay jële nañ ci abu hurayra radiallahu taala anhu mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci xadis boo xam ne muslim moo ko génne yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne bunti àjjina dañ koy ubbi altine ju ne ak alxames ju nekk nee na sunu borom tabaraka wa taala day jéggal bépp jaam boo xam ne du bokkaale loolu lu rëy la képp koo xam ne doo bokkaale bu altine ak alxames jotee dañ lay jéggal say bàkkaar mu ne ba mu des ñaar ñoo xam ne ak noonoo dafa dox seen diggante ñaari mbokk ñaari mbokki jullit nee na kenn ku nekk garde sa sa na su boobaa dañuy wax ne andiru haadayni xatta yastalihaa xaar leen bu leen faragoon bàkkaari ñaar ñii ba kero ñuy juboo suñ juboo ngeen doo koo far ci beneen xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa toog ak saxaaba yi ci jàkka ji ba mu yàgg mu ne bunt bii day léegi nit dugg fi koo xam ne ci waa àjjana la bokk ñu toog noonu rek benn waay daal di dugg si koo xam ne ci ansaar yi la bokk dugg njàpp maa nga tooy xëpp mu julli ñaari rakka daal di ñëw toog ca ëllëg sa ca waxtu wa yonente ba sallallahu alayhi wa sallam waxaat la waxoon waaj dugge waat nam dugge woon def ko nag ba muy ñetti yoon bi loolu amee abdullah ibn amr ibn al aas radiallahu anhuma mu ñëw ca waaja ne ko man de dafa am lu dox sama digganteeg sama waajur ba fan yi duma ko mën a nekk ma bëggoon fu ma nekk mu ne ko bisimilah man ngaa ñëw Abdullah ibn Amr ñëw di yàlla ca kër waaja di fa fanaan di ko seetlu ba xam lan lay def ba am lii nga xam ne moom la yonente bi wax ci moom ndax ñoom ñu xéroon ci xam nit ki fan la jaar ba baax ndax ñu man koo def xéroon nañ ca lool jaraloon na leen lu bari mu ñëw di yàllu fanaan ba ñetti fan yi mat gisu ko muy julli julli bu bari boo xam ne nit ñi duñ ko julli gisu ko it muy woor koor boo xam ne nit ñi duñ ko woor bi ko Abdullahi waxee nag li xew ne ko li ma fi taxoon a ñëw de mooy nangam ak nàngam yow lan nga def ba raw nit ñi mu ne ko ah, loolu de xaw ma ko xam naa ne daal li nga xam ne yëg naa ko ci sama bopp moo di ne daal sama xol bi dencalu ma ci ab jullit lenn loo xam ne ay wor la wala kiñaan la dencalu ci ab jullit lenn loo xam ne xeetu wor la wala kiñaan la musuma eñaane it nit aw yiw woo xam ne sunu borom tabaraka wa taala daf ko jox bi mu waxee loolu mu ne ko lii Abdullahi tontu ko ne ko kon lii mooy li nga xam ne moo la yéege ba nga agsi ci martaba bii nga nekk te bi nga xam ne nun attanun loolu maanaam mënuñu ko kon dënd bu mucc dënd bu sell xol bu ëmbalut kenn aw ay bépp société boo xam ne nit ña fa nekk bindoo nañ noona wala loola bari bari fa mooy doon société boo xam ne dañuy jàppaloo dañuy doon benn bu dee am mbooloo mbooloo mu bennoo lay doon bu dee kër kër gu bennoo lay doon bu dee aw xeet xeet wu bennoo wu am doole wu am kàttan la ñuy doon woo xam ne lu ko mën a gaar ci ay fitna ak yi jafe-jafe itam du fa mën a jeexital waaye bépp société boo xam ne fexeeleente moo ko lal tegalante ay plan jéem a tàbbal say moroom ci ay fitna xol ya fees dell dell ak i wor fees dell ak ki ñaan fees dell akuk mbañeel booba société la muy jur mooy mel ne société boo xam ne société ay mala lay doon jur gi nekk ci àll bi ci nga xam ne ay malale ku jekku sa moroom fàdd nga xam ne ci fàdd keneen lekk ko loola ca la ñuy dund day mujj ñooñu la ñuy gënoon mu róot ci ay doomi aadama yoo xam ne yu dund lañ xol bu ñàkk a xol yu dëngoo xol yu fénqaloo defaraat ko lu jafe-jafe-jafe la loo xam ne laaj na effort bu mag a mag ci ñi nga xam ne ñoom la seeni xol dëngoo moo tax kenn ca waykat yi day wax ne xol sax bu demee ba dëngoo nag ba bañante dëgg dëgg dëgg moo butéel bu toj ñooyam daanaka kenn mënu fa defaraat ba melaat na meloon bu jëkk kon jéem a góorgóorlu ba loolu bañ a nekk ci loolu mooy li melokaanu jullit abu dujaana radiallahu taala anhu kenn ci saxaaba yi la bi mu demee ba nga xamee ne mi ngi nekk ci sukuraat di bëgg a faatu foofu nga xam ne ku fa nekk ñaareel sa xar kanam day ànd ak njàqare lu bare bari ñi xool ko gis xar kanam bi ànd ak mbég lool mu ànd ak sagoom itam tàggoowut ak sagoom benn yoon ñu ne ko waaw lii lan la mu ne bokk na ci ñaari mbir yi ma gën a yaakaar fa sama boroom benn ba mooy musuma ci loo xam ne itteelu dugg ci yëfi jaambur lu sama yoon nekkut musuma koo def beneen ba mooy sama xol ëmbalul ab jullit lu bon kon loola mooy melokaan yu baax al imaam ahmad ibnu hanbal radiyallahu rahimahullah ku nekk xam na ne ci jamono mu'tasim jàpp nañ ko mbugal ko mbugal mu metti dóor ko dóor yu metti ngir diineem fekk buur ba ko doon def dafa dugg ci kuréeli biddaa ba noppi ni nit ñëpp faw ngeen doon waa biddaa wala ñu mbugal leen imaam ahmad ibnu hanbal doon ku dëgër di imaam ahlu sunna wal jamaa ñu jàpp ko dóor ko dóor yoo xam ne yu méttee métti la dugal ko ci kaso biñ demee ba jamono yi mu'tasim jeex mu faatu ba ñeneen jaar ko ba ci jamono yu mutawakkil imaam ahmad yëg métti bu métti métti waxoon ne dafa nekk ci gannaawam biñ ko seetee ñu gis ne am na benn tut bu nekk ci biir yaram bi boo xam ne lu yàqu la loo xam ne faw dañ ko war a xot ci génne ko maanaam dañ ko war a opérer ba doon suñ jamono yu tey te booba opération amul luñ cay def ba borom du ko yëg tàngal ba mu tàng rek ñu xotti la ñu def génne jamono yañ koy xotti mettit wa metti lool al imaam ahmad ibnu hanbal bi mu yëgee mettit wu metti woowu mu ne yàlla yàlla na nga jéggal al mu'tasim mooy ki ko ko tegoon di ko ñaanal sunu borom tabaraka wa taala jéggal ko taxane kooku mooy sababu mettit woowu mu doon yëg ci jamono jooju loolu ñu bari mënuñu ko kaddu googu ku fa toll lu bare bare bari fa ngay xalaat mooy ki ma def lii fan la jëm wala nga rëbb ko wala nga ñaan yàlla ko waaye ñaanal ko njéggal loolu bakkan bu ndaw mënu ko al imaamu shafii rahimahullah benn bis feebar kenn ci taalibeem yi ndongaam yi muy jàngal ñëw di ko seet bi mu ko seetsee mu di ko ñaanal bi mu koy ñaanal xam naa waxiiru arab boobu moo ko nax ndax dafa ne qaw wallahu daafak comme li daal ñu bari tey ci seenu làkk buñ koy làkk dañu ciy juum maanaam dégguñu bu dee wolof dégguñu wolof bu dee leneen it dégguñu ko ci biir waxinam mu ne ko yàlla na yàlla dëgëral sa néew kàttan gi yàlla na yàlla dëgëral sa néew kàttan gi xam nga ne la mu bëgg a wax mooy yàlla na la yàlla jële ci ak néew kàttan yóbbu la ci am kàttan waaye li mu wax du loola na yàlla dëgëral sa néew kàttan gi al imaamu Shafii ko xóot la woon ci kàllaam ak araab mu ne ko yàlla bu dëgëralee sama sama néew kàttan gi kon dana ma rey ndax néew kàttan gi ci boppam boo ko doolee dooli kon kàttan gi day gën a néew mu ne ko loolu kon su ko defee rey ma taalibe bi ne ko yow imaam yàlla xam na ne day li ma wax nii lu baax laa ci jubloon waaye jubluwuma lii nga ci déggee al imaamu Shafii daal di muuñ ne ko xam naa ne yow saaga sax soo ma ko defoon damay xam ne soo làmmiñu ko def waaye jubluwoo ko ci kon dama laa wax ak yow rek pour jubbanti sa kallaama waaye jublu ma wax ne loolu ci sa xol la ne kon dégg yéen yu rafet yooyu nga xam ne noom lañ doon déggante ba kàddu gu ñaaw su jógee ci nit sax nga déggee ko lu rafet loolu mooy melokaan bu baax wax zeynul abidin mooy doomi xusayn doomi ali ibn abi talib kon la mooy ali ibn xusayn ibnu maanaam xusayn doomi ali ibn kooku la tudde woon baayam mu doonoon nag imaam bu baax borom jikko yoo xam ne li ñuy nettali ci siiraam kenn xamul nu mu dem dafa amoon nag ñu ko bañ ay noon am bis mu daje ci kenn ci ñooñu wala koo xam ne kenn ci ñooñaa ko yebal mu ne ko yow yaay ali ibn al xusain mu ne ko waaw mu ne ko kon yow yaay cheynul abidin maanaam zeynul abidin bu fekkee da ngaa tudd za bi ni ko war a tudde kooku mooy taarub jaamukati yàlla yi waaye mu waxe ko neneen mu ne ko cheynul abidin mooy kon yow yaay ki ñaawal mboolem ñi nga xam ne dañuy jaamu yàlla jaamukati yàlla yi yaa leen ñaawal continuer taxaw ci kanamam di kooku wax ñu ñaaw xas ko ba mu neex ko mu di ko déglu ba mu noppi mu ne ko noppi nga mu ne waaw mu daal di muuñ reer ne ko yow sama doomu ndey li nga wax lépp dëgg la mi ngi ci man waaye li ne ci man te xamoo ko moo gën a bari bi mu ko waxee loolu nag waa ji daldi tàmbali di jooy ne ko lii ma def defaluma ko sama bopp ay nit ñoo ma yebal lenn ci say noon ñoo ma yebal ne ma soo fexee ba merloo ko tabbal njàqare ci xolam boo dikkee ñu jox la alfu dinaar bu doon ci sama suñu jamono ji da nga naan un million lañ koy jox wala lu ko ëpp nee mu ne ko loolu jaru ko woon mënoon ngaa am alfu dinaar doo jaar ci wet bu mel noonu daa di geesu kenn ci ñi mu àndal ne ko joxal ma ko alfu ñu jox ko ko mu ne ko li tax ma jox la ko mooy bëgguma nga xëy doon wuti dara doonte ni nga ko wute loolu du yoon wa waaye nga delluwaat te yóbbaale woon nga doon wut daal di koy jox alfadina xool yooyu jikko ñii ñooy ñi nga xam ne dañoo yaroo ci keppaaru saxaaba yi nga xam ne ci keppaaru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la ñu yaroo benn bis dafa am ay ganam ki nga xam ne kenn ci jaam ñi ci kër gi la mu di leen defaral lu ñuy naan bi mu indee ba di ko tàllal mu tuuru ci seen kanam ci kanam gan bi mu àndak ak njàqare lu metti xamut lu mu koy wax waaye xale bi xam na euh, zeynul abidin fan la ko alxuraan toll ndax bëggul noppi bàyyi mbir mi noonu mu doon aw naqar woo xam da koy denc ci xolam te it mbugal sax mën na ca tegu su fekkoon ne ñeneen la waaye mu tàmbali di ko fàttali aay ja nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala daf ciy wax ne wal kaazimina al gayza wal aafina an innas mu jox ko ko baat par baat wal kaazimina al gayz sunu mi ngi fay wax ñi nga xam ne dañuy mer bu noppi nëbb ko ba du feeñ mu ne ko wal kaazimiin al ghays loolu la ko jaam bi wax Zeynul Abidin ne ko denc naa sama mer mu ne ko wal aafina anin naas ñi nga xam ne buñ leen tooñee ñu jéggale bi mu ko waxee loolu mu ne ko jéggal naa la mu ne ko wallahu yuhibbu al muhsinin mooy li suñ borom tabaraka wa di wax ne yàlla bëgg na ñiy rafetal mu ne ko goreel naa la ngir yàlla kon ñooñu loolu moo doonoon seen jikko kenn ku nekk xam ne ca qissatu yuusuf nga xam ne moo jiitu loolu lépp ak doomi bàyyi ma fañ jaar ak ñoom ba sànni ko ci kàmbag ñu jaay koo metit yu nekk yuusuf daj na ko ba sunu borom tabaraka wa jox ko kàttan jàpp ndalal ko ba mu doon buur ñooñu yàlla xiifal leen bañ aajo woo ko ba ñëw ci moom kooku mënoon naa fayantoo ci moom ci ñoom xeetu fayantoo wu ko neex wu nekk waaye biñ dikkee lañ doon wut si da leen a jaay ba noppi may leen tegal leen ca biñ demee ba xam ko ne xam ne mooy moom mu ne leen laa tasriba aleykum al yawm amu leen benn yaraange bu tegu ci seen kaw yaxfirullahu lakum yal na leen yàlla jéggal yéen ñëpp ndax yàlla borom maa la kon kooku ku baax noonu lay fayantoo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen lu nekk daj na ko ci màkka ba ñu génnee ko mu dem dëkki fenn dëkki feneen yàlla dëgëral ko ba mu del siwaat biir màkka bis bi nga xamee ne jekku na leen ba su fekkoon ne daa bëgg a rey waa màkka bañ jeex dañ leen di rey benn par benn bañ jeex kàngami màkk yi dañoo génn jàkkaarloo moom ne ko mu ne leen lan ngeen yaakaar ne moom lay def ci yéen ñu ne ko anta axun karim ibnu axin karim yow de ku baax ku tedd nga say waajur yi tam ñu tedd leen loolu ñu ngi koy door a xam keroog mu ne leen idhabu fa antum tulaqa dem leen jéggal naa leen man ngeen a dem kon jàppewu leen dara ci la nga xam ne lu weesu woon la kon mbir ma mbokki jullit du noonu lay mel ak mbëggeel day sell yàlla rek tax ak mbokkoo day doon lu sell yàlla rek tax xol bu mucc bakkan boo xam ne bu sell la ab dënn boo xam ne bu féex la ci mën a jéggale bañ a denc mer bañ koo dencal kenn bañ a dégg kàddu gu nit wax nga firee ko lu bokkut ak la boroom jublu te xam ne mënoon nga koo firee neneen noo xam ne lu rafet la loolu mooy li nga xam ne noonu la nit di mel ci digganteem ak ay mbokkam lu bare bare bari ci loo xam ne ay nit a ngi jàngoonte moom moom tey seeni dënn gàddu ay feebar yoo xam ne day mujj sax tëral leen ñoom bari na ci yoo xam ne la dënn ba yanu ci xeeti kiñaan ak xeeti metit ak xeeti yéene doomu aadama yi lu bon te li ngay yéene bis bu nekk boo xëyee di gis safaan ba loolu fa mu jëm fa mu jëme nit ki mooy indil ko ay feebar ay tawat yoo xam ne kenn du ko mën a faj ndax lay sabab sa ab docteur mënu koo xam docteur bi moom danaan rek métit bi fii la war a nekk yu mel noonu joxe ay médicament ak ay yëf waaye fekk na la ca xol ba nga xam ne dafa dëkke di bax guddi ak bëccëg ndax ñi muy xëy di leen teg bët borom bi tabaraka wa taala di def ci ñoom la ko neex te loola dara neexu ko ci moom loola moo koy indi tawat bi mel noonu mu dëkk feebar bu mel noonu ba keroog muy wuy ci su demee fekk fa la nga xam ne loolu la yeyoo kon mbokk jullit yi ñii ñooy ñi nga xam ne ay misaal lañ ci xol yu set ba bakkan yu féex ak jéggale ak def lu baax dëgg la nit mënoo ànd ak moom mukk ak lu mu doon ci yow moo xam mbokk la moo xam soxna la moo xam borom kër la ngeen ànd te te du la def dara faw tooñ di am waaye nag nit ki bu tooñee benn tooñ nga xool gis ne am na yu bari yu rafet yu mu def kon lu rafet loolu mu def mën naa effacer li nga xam ne moom la def ci njuumte mooy société bu saxaaba ya ak taabi'un ya muy ñi yonente ba yar ak ñooñu ñañ yar ñooñu boo xoolee ak li nit ñi dund tey nga gis ñoo xam ne bàyyante nañ boo gëstoo lan moo tax bàyyante ga am day wax ne man li ba mu amee ngénte demoon naa ca bi ma amee ngénte yëgal naa ko ñëwut ak bàyyante daal di dugg ca lool ñaara ngi bàyyante lan moo tax mu ne dama dégg mu wax kàddu goo xam ne donte jubluwuma ci it xam naa ne man la ci jublu ndax man lay léebu ñu teggee ca loolu bàyyante ñoo xam ne dañuy jël seenum xel mu mel ne ordinateur ñu di ko chargé di chargé ba mu fees tell ak njuumte doo yoo xam ne jàpp nañ ne sax ay njuumte la ngir bëgg kooku bis boo ko jekkoo rek loolee nga defoon ca mémoire ba nga génne ko lépp ca kañ la ko defoon ak nu mu ko defee woon ak lépp kon googu jot ak woowu melokaan tey doon woo xam ne day yàq ab société day yàq diggante ay mbokk kenn ku ne nag xam na ne pexe yi nga xam ne moom la seytaane di fexe di ko fexeel jullit yi rawatina ci ñoom ñi nga xam ne dañoo bëgg a baax seytaane ñooñu la soxla kon juuyoo gi am ak xol yu bon yi lu ci bare bare bari pexem seytaane la moo tax borom bi tabaraka wa taala mboolem aay yi nga xam ne da ciy soññee ci lu mel noonu yi ci ëpp boo xoolee bu noppee ca loolu lam cay teg mooy wattandiku leen pexem seytaane boo xoolee aay boobu yi ma doon wax ca sóoratu fussilat ba muy wax ne loolu muy mën a jéggale ba ki tooñ nga yemale ko ak sa mbokk muy wax ne loolu ñu mën a muñ rek lañ koy jox boroom cër bu mag lañ koy jox daf caa teg ne bu fekkee seytaane ñëw di la jax-jaxal na nga muslu làqu ci sa borom tabaraka wa taala ndax sa borom tabaraka wa taala mu ngi lay moom moo lay dégg te moo xam say mbir ba mu waxee itam ca suratul araaf ne na ngay jéggale tey dégle lu baax te képp koo xam ne dafa nekk ci ak réer ceeb doom nga won ko gannaaw daf caa teg ne bu seytaane ñëwee nag di la jax-jaxal di jaxase sa dënn na nga làq ko fi sa borom tabaraka wa taala même yusuf alayhi salaam bi mu nettalee loolu xewoon ci li xew ci diggante mbokkam yi daf ne baada an min baadi an nazara cheytaanu wa bayna ixwati yi gannaaw boo xamee ne cheytaane moo jaxase sama diggante ak samay mbokk kon cheytaane la ko jiñ borom bi tabaraka wa taala nee na njëkkante leen njëkkante leen jëm ci ak njëggal gu tukkee ci seen borom njëkkante leen jëm ci ajjana joo xam ne yaatoo na ne asamaan ak suuf kër goo xam ne yaa ko moom ñenee la yaatoo na ne asamaan ak suuf te nee na loola dañ koo waajal rek tegal ko ñi nga xam ne ñooy ragal yàlla ñi nga xam ne dañuy joxe fi sabilillah ci waxtu woo xam ne waxtu naataange la ak waxtu jafe-jafe la ak ñi nga xam ne dañuy nëbb seen mer ak ñi nga xam ne dañuy jéggal doomu aadama yi ndax sunu borom tabaraka wa taala dafa bëgg lu rafet yàlla na sunu borom tabaraka wa taala defal tawfiq yàlla na sunu borom tabaraka wa taala may ay xol ak ay xel yu mucc ak ay dënn yu féex ci noonu ak ay jullit sàmmal na sunu diine ak sunu sunna wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain